est-ce que bi ngeen di forcer nit ñi compteur woyofal yi nag est-ce que client bi warul am. choix de consommation loolu sax wax nga si wax nga si dama la fàttee tontu dama la bëgg a wax ne Senelec relation ak client bi dafa am benn document boo xam ne moo koy régir mooy le règlement de service te loolu Senelec da ko signé engagé si règlement de service boobu nag quand commission bi buy def consultation publique yi ak nit ñi di discuter document yooyu dëgg-dëgg souvent ñu muy intéressé ñu néew lañ et su paree yi tamit et sa man dama koy reconnaître waroon nañ def effort expliquer client bi que suñu relation bi kat nii la war a demee ba client bi xam ko mais dama la bëgg a wax ne Senelec mënul def loo xam ne c'est pas prévu sur règlement de service am. communication amul. d'accord <laughs> entièrement d'accord ak. communication te loolu bu soobee yàlla nu ma la wax jël naa décision que loolu dinañ ko corriger te dinañ ko corriger bu soobee yàlla communication amul mais moo tax ma bugg a rassurer et même ñële bu ñu ñëwee ba ma leen recevoir loolu laa leen dama leen ne Senelec lépp lu mu def. lépp lu mu def se consigné sur règlement de service am est-ce que xam nga yow may mun a fii nii tey bu ñu toogoon courant bi ne tëll mu am benn problème je suis obligé ma rédiger rapport jox ko le régulateur wax ko ne li ak lii ak lii moo am lii ak lii moo tax lii ak lii moo tax ma def nii voilà disposition yu ma jël Senelec et une entreprise régulée quand quand quand tu es soumis à la régulation nag tu es surveillé et tu dois répondre de chaque acte bu ngay posé moo tax amuñu possibilité def lu ñu neex walla lu ñu sob loolu mais communiquer wuñ suffisamment pour client bi xam ko mais loolu bu soobee yàlla dinañ ko def